mu ne liggéey bi lépp dafa dëppoo ak ni mu ki ñu koy liggéeyal ni mu ko taamoo. mu ne dafa bokk ci li nga jëkk wax muy jàppale daara yi. boroom dafa wax ne barab bi. maskana taalumi la. ak fikratu ak tafahum ومسكن الإرشاد mais day mel ni rek li borom juuti ci barab bi yëpp rek moom lañ doon waxtaane nee na li jëm ci wàllu assainissement bi sunu jëwriñ ji jiitu bi muy doog a nekk jëwriñ dafa demoon di ko siyaare nee na du wa du fi waxtu wii ci jamono muy mu ne daal na ko seetle warugar yi nga xam ne dëkk bi aajo woon na dëkk mu ne xelam na yar mu ne ko dëkk bi de bu nawet dikkee. bu nu xayma woon ci juróom-benn mbedd. ñett yëpp day sakk. nee na fekk na nag booba moom ma ngaa ko dégg ci foo xam ne. mu daal wax ne loolu day musta waaw. nee na mun a teg déglu ko. mu ne loolu amoon na. warteefu état la. waaw mu ne loolu warteefu état la. te mun na koo xam na ne état bi mënu ko sax waaye yow man nga ko. waaw waaw. yi nga xam ne dañoo néew doole ci développé wul. Mm-hmm. mënuñu ko. mu ne ko nag waaye yow man nga ko. su fekkoon mu ne ko misaal. mu ne ko ci misaal su fekkoon ne dañoo song benn quartier. mu ne benn quartier boobu moom lañ fas yéene jiital ci liggéeyub assainissement bi. nga ànd nga ànd ko ak njaboot gépp. su booba daanoo ñu jëlaat beneen carte nee na kon day mujj lépp noppi rek nee daal loolu ba amul benn temps bu mu ci tegaat wala commentaire bu mu ci teg nee daal amul lu dul mu toll ci lu toll ci ñaari weer wala ñett gis ay barab yu ñu jóg ay tiwoo kon kon nee na kon dafa mel ne. nee na ñu ngi yeesalaat bëgg-bëggub sunu jëwriñu dëkk bi. ñoo ngi koy sottal. nee na yàlla nañ ci dajee ak ndimbalam ak ndamam rek. lamp ngeen ci nee na lu mel ne làmp yi ni ñu ngi taxawee. lu mel ne sax saayiru baat <laughs> bi. nga xam ne day fab leer dàqe koog lëndëm. nee day mel ne taxawaayu làmp yi sax saayir si firi na loolu. nee na fii dafa bokk ci liñ fi doon waxtaanee. li mu doon junj ci njëlbéen gi ne ci jataay bi rek lañ ko doon waxtaanee. loolee mu doon wax ci assainissement bi. ba tudd hôtel de ville bi muy maire bi. mu ne dajee am ko jaawale wax ne ñun de yëf yi dañ ko waroon a jox Touba ca kanam. waaye nee bay boo ñu rafet njort rek. ndax nee liy raam ci ñag bi rek la jëm. liggéey bii ñuy def moom. nee day leeral. nee na day leeral wax joo xam ne sëriñ Fallou waxoon na ko Cheikh Anta Diop. na bi seexante Anta dikkee ne ko dañoo bëggoon ku nu jàppale ndax dañoo bëgg a liggéeyal réew mi. nee na sëñ Fallou da ko wax ne ko loolu day xalaat bu baax la. waaye danga nga fee fekk nag ñu la fi jiitu. ñoo xam ne fi nga jaar rek lan jaar. wuute xam-xam. wuute xam-xam ba ne am na xam am nañ xam-xam. na dañoo bëgg a defar. ñu ànd ak ñoom ci loolu. soo bëggee nag mber ma. da dugg ci biir liggéey ba. da ngay dugg ci biir liggéey ba. bu sa loxoy ràññi ko. bu sa loxoy ràññi ñu xaasal la rek ber la jàppale la. waaye nee na ñun ñii nag. nee na seen loxo ngi ràññi ko de. na cërub dëkk bi bu mu mën doon. baye boo ñu séenu rek ne ma naan ci suñu loxo. <laughs> waaw nee na daal yàlla na mucc ci mboolem gàllankoor yi ak ndox yi.